nañ daal bërëb bu lëndëm la ci lañ leen daal di stoppé ñi leen stoppé nag nekk ñaari xale lu góor yoo xamante ni kenn ki ko faat ca la bokk ñoom nag kenn xamul rek ki nag dafa daal di génn rek ginnaaw xeex bu métti bi nga xamante ni rek jot na dox ci seen diggante moom dawalkatu moto Jakarta boobu nag mi ngi doon wuyee ci turu Pascal Mendy moom ci jëmi boppam rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko doon agressé dañ ko dal jàpp waaye nag réussirul à 100 ginnaaw nag bi ñu ko jamatee ay paaka yu bare bari laata nag muy génn àdduna ginnaaw bu ñu sàccee nag ab motoom ba noppi rek ñoom ñaari agresseurs yooyu nag dañ leen daal di topp ñu leen topp nekkul ñenn rek ñu ay dawalkatu moto Jakarta kenn ki ci jëmmi boppam nag dafa daal di daw jël ba beneen angle ba keneen ka ca topp nag moom ci jëmmi boppam rek ña leen toppoon nekk ay dawalkatu moto Jakarta nag daal di koy teg loxo moom nag bi mu yegsee ba diwaan bu Taba si lañ ko daal di taalee mu daal di lakk mu abandonné ko fi nga xamante rek moom mooy ca boobule yoon bu ñu sukkandiku sukkandikoo ba tey rek ci boobule source nag ne nañ ki nga xamante ne daal moom moo daal di faat kooku di Pascal moom ci jëmi boppam rek ne nañ daal ko miin jël la ndax nag yóbbu nañ ko ay yoon yoon nag jël waaye fi nga xamante ne rek foofu la làqatu woon nag dafa nekk ak bërëb boo xamante ne rek dafa doon ànd ak ay nit ngir mën fa def nag ay ñaawteefam moom ci jëmi boppam nag amoon na sax ab liberté conditionnelle ginnaaw bu ñu ko takkalee rek lii di bracelet électronique bi ñu takkoon ca tànk ba ngir mën a détecter lépp loo xamante